li tax ñu woote woon tey mooy ànd xeex jikko yi nga xam ne Serigne Babacar Mboup ñu ngi koy sant di ko ziara nga xam ne def na ci lu rëy macha allah ci Sénégal kenn du ko le ndax 45 département yi kilifa yi ku nekk dem na ci yow sukk wax la nga xam ne nii moom la seq ak yow wax li nga xam ne moo bëgg dugg ci réew mi di ko sëriñ bi waxee ñu bëgg koo yoonal ndax daganal yàlla suñu borom moo koy def waaye mu ànd ko sëriñ bi ak mboolem kilifa yi nga ne lu baax ñor na leen kon lii mbir la moo xam ne nii xel mu rafet ko nanguwut maanaam diine sax ji amul den diine di ko di ko nangu ndax xel la dafa gën topp macha allah ndax li ñu xamoon ci lislaam mooy góor ànd ak jigéen ni ko alquran waxee sa yu ngeen demee macha allah man man istataa minkum baata wala xadis la yonte ne ku jot ci yéen góor ñu gént jot mat li ma góor di am na dem takk soxna su ko mënul na féete woo koor macha allah ndax koor dana tax dana dagg bànneex lu bëri yow na nga xalaat loolu lépp nga gis suñu borom def ko muy wax ju rafet nga tege ko nële ne man li ma choisir mooy góor ak góor kon damay wax ne ñoom bàyyi ma yi sax moo leen tane wax naa ko léegi ci waxtaan wi ne bàyyi ma bu fas bu góor di ànd morom fas bu góoram kon ñoom ñoo gën a yées bàyyi ma kon loolu ñu bëgg a def ci réew mi duñ ci ànd tey duñ ci ànd ëllëg ñi ko sëriñ bi waxee ne ñu koy ñaan ndax macha allah ñun yàlla lim ñu féetewoo mooy euh, fa bi lisaani yi comme fa yadd yi ko gis ci yéen loo xam ne jaarut yoon kooku président moo ko mën mën mu dinde ko loxom mais ñun li ñu mën mooy ñu wax suñu làmmiñ parce que sëriñ si lu ñu mën mooy naq méttalu ko seen lamiñ ñi nga xam ne nag amuñ pouvoir yooyu ñu méttalu ko seen xol kon ñun fi ñu toll muy borom xam-xam yi muy sëriñ si nekk Sénégal rawatina Gossas muy sëriñ daara yi nekk Gossas rawatina macha allah Sénégal gépp ñi ngi méttalu lii nga xam ne yàlla tëkku ci ma yëpp leeral nañ ko fi jotaay bi ci alxuraan daal ci alak am dëkk kon loola la ñuy bañ macha allah ndax dañuy wax ne dafa am xeet xam ne dafa am gu baax gu fa dekkoon commencé ca góor googa kon day wane ne loolu lañ xam nag daal di jóg macha allah li ko sëriñ bi waxee bu laajee suñu bakkan ñu joxe ko ndax gënuñu sahaaba yi bu laajee suñu bakkan ñu joxe ko ndax gënuñu Sëriñ Haaji Malick bu laajee suñu bakkan ñu joxe ko ndax gënuñu Sëriñ Tuubaa kon mag dañ leen di roy ci jëf bañ leen roy ci wax waaw niñ ko nar a wéyalee rek mooy xel bil hikma udu

ñi ngi koy xeexee daal ak ak xel mu daal waaye ji na ci alxuraan ak sunna. nun daal taxaw nañu temm ci lii nga xam ne mooy mbirum góor jigéen waxatuñu nañ ko nañ ko bu fi am dañuy wax naan nañ ko criminaliser loolu ñu ngi leen koy wax. lii nga xam ne àddina taxaw na temb ci ndigalul euh, Nations uni bëgg mbirum góor jigéen ñu yoonal ko am na ñuy wax baatub daganal maa ngi leen di wax bu kenn waxati bu benn jullit waxati naan dañoo bëgg a daganal baatub góor jigéen ndax daganal yàlla rek ko mën mm. kon baatub yoonal la li ñu bëgg nag muy ñu yoonal ba góor jigéen mbirum góor jigéen loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg te lépp lu mu laaj nag dañ ko def ñoom nag ñoo ñoom a ànd ndax ay jullit nañ ne nun da di nag gouvernement gouvernement la euh, Nations Unies réew yi dafa am doole ci seen kaw ndax lu bari ci ñoom ci seen i ci Nations Unies lay jógee waaye buñ bëggee imposer euh, réew mi mbirum góor jigéen na nguur gi xam ne askanam lank na du fi amee tey du fi am ëllëg kon ñoom it nañ jottali suñu kàddu googu ci xam ne ak doole juñ mën a am ak lu ñu leen bëgg a ak lu ñu ci mën a teg ak lu ñu mën a dig itam askan wi du ko nangu incha allah te lu mu laaj danañ ko def xam nga ñoom ñoom dañoo bari ay pexe dañu koy naxe da nga dégg sax ku naan lu bari la léegi tasaaroon ci réew waaye maa ngi leen di yee maa ngi ci yee askan wi ci lu bari demeewul noonu ñu koy waxee xam nga lu ñu fexe dañoo fexe fexe ba seeni i mandarga mandarga yi ci réew mi ba fexe ba su ñuy ndaw kenn ku ne seen i yëre ngay sol seeni couleur ngay yore fexe fexe ba suñuy jumtukaay yëpp ñu def ci seen i mandar mandarga yi ñu ñu yi ñu moomale seen bopp ndax moomuñu ko ndax arc-en-ciel ñoom moomuñu ko fi lañ ko fekk waaye nag gannaaw ñoom dañuy ay nit ñu bon ñoo xam ne ñoo yées ay bàyyi ma tànn loola def ko muy seen drapeau ba àddina bëgg leen cee jàppale kon loola dañ koy bàyyi ak ñoom dootuñ ko soxla mandarga yooyu nag moom la fexe fexe ba mu yaatu ci askan wi ba ku wax ne dañoo bari waaye bari wuñu ñu ngi naan fi am na fii ci dëkk waaye gaw loolu gaw loolu ñuy sol seen i col nag sol seen i yëre mu ngi fi waaye loolu nit ñi xamuñ ko loolu nag fexe nañoo fexe fexe ba mu yaatu ndax li ma wax sànq rek fii ñu egg Euh, ci impose ko tey réew yi li tax ñu ñemee ko imposer mooy dañoo fexe fexe ba jàllale nañ ko ci biir jàllale nañ ko dugal nañ ko ci problème ñu ngi ko dugal ci programme scolarité bi ni ma koy waxee euh, éducation bi euh, examen blanc bi amoon tëngeej barki démb ñëpp gis nañ ko ci ci ci internet bi sujet anglais bi texte anglais bi texte góor jigéen la waaw ñu def ko yaakaar ne nit ñi duñ ko xam kon la tax ñu ñeme def loolu ci éducation nationale ñu ñemee def loolu moo lay wan ne loolu dugal nañ ko ci biir waaye dugal googu ci biir nag tekkiwul ne dañoo bari loolu nañ ci bàyyi xel tekkiwuñ ne dañoo bari dañoo fexe fexe ba seen i mandarga yaatu tasaaroo ci réew mi ba ñoom ñu mën a dugg ci biir réew mi te kenn du leen xam waaye bari wuñu gëw a gosaas am nañ si waaye bu fi amoon itam daañ ko daañ ko faj